waaw tey nag ñu ngi Mbour jàkkaarloo ak Big Pato waaw luñ fendi nag ku ne xam na ko desewu Pape Dia ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaakaar naa Big Pato police la waaye tam mbër la te defe naa ne nijaay la wala daal am na lu ko lié ak Pape Dia ci wàllum deret Big Pato ñu ngi lay jaale te di la ma masaw li ñu bokk waaw onze billahi min shaytan rajim la hawla wala quwwata billahi illa billahi al-aliyyil azim ginnaaw bi ñu sant yàlla jur sant dañuy gën suñu ñaari waajur di yàlla bu baax di leen dalal comme ni nga ko waxee Pape Dia sama ganaal sama nijaay la bu ko neexee ne ma jarbaat bu ko neexee ne ma rakk moo génne àdduna tamit nekkoon sama manager temps nekkoon ku ma jege tamit euh, sama diggante moo xam nga ci dara fu di dugg Dakar heure bu ne nekk nan ko heure bu ne jugee na ko sama kër heure bu ne ñëw na ko sama kër kon bu génnee àdduna Bombardier ñàkkul man mi maa ñàkk parce que Bombardier ma ñu wax ci fin de carrière la nekkoon deux ans moo ko dese man mi maa amoon soxla ku ma gën a encadré parce que dafa ma promettre woon que ni naa la gunge ba nga teg sa tànk fi ba mbëjee teg tànkam kon tey kooku bu fa jógee man mi maa ñàkk ak Sénégal yëpp nekkoon ne ku dal ku baax ku teey ku mën a dajale ay nit ku xam luy fair play ak sportivité parce que Pape ñu bëri xamuñ ko mais footballeur la woon la woon point kon yàgg na ci sport ñun dañoo judd fekk ko ci sport ñuy ànd ak moom mu encadré nekk ko xam ne daal qualité yi nekkoon si moom bëri a lépp benn kàddu ngay dégg mooy nitu nit ñi la woon xaritu ñëpp la woon waaw ku ñaa ki ñaan yàlla na ko yàlla yërëm ta xaar ak àjjana yàlla sarax saraxam yàgg seen loxo te nag yonent bi teere ko parce que nag weeru mawlid lañ nekk te ñëpp xam nañ ni li yàlla bind lépp ci Moustapha la ko bind ngeen di mbindeef ñu nekk ci weeru gàmm kon bu su génnee àdduna dañuy sant yàlla bu baax ci période bu mu ko génne mooy période du ngeen dewaat ba kon yàlla na nabi bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam la ñëpp yaakaar teeru ak sëñ Touba bi mu yaakaar maam El Hadj Malick ñëpp nañ ko teeru. Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar di la jaale li ñu bokk muy grand pape ja yaakaar naa mbër nga ngeen bokk région de Thiès bi donte Thiès nga dëkk mu dëkk Mbour mi yéen bokk région bi loo ñu mën a wax ci grand bi ci maanaam nekkinam yéen ñi nga xam ne ay sportif ngeen daan jaxasoo ak moom. auzu billaahi mina sheytaani rajiim ngi julli ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur Pape Dia lool rek boolewuñu ndax man écurie Mbour laa bokk écurie Bombardier laa nekk yàlla dogal ba ma xàmmali ko ba léegi di nekk ci làmb di bëri écurie Bombardier laa nekk di ànd ak moom nekk ak moom mu doon sama mag bëggal ma boppam Pape doon grand boo xam ne dafa ñàkk kiñaan boole ñëpp Pape dun ne sunu mag la sunu papa la woon sunu xarit la woon sunu lépp la woon man Cheikh Niang mi rek Pape bu ma saana wéet ak man mébét yi muy bëgg ci man ak li may conseil ak li may ñaanal damay dem ba na grand bi man xaw ma wàlli wala xaw ma Pape Dia heure boo ko gisee bañam ngay njëkk a xool gis mu ree ku ko nuyu balaa def dara lay jël akolaal la taf la ci dënnam te loolu rek si ñu rafet la bu yéene ñëpp jàmm Pape Dia kenn mës a dégg mu wax infraction ci benn média ñu ne Pape jaa fi wax li mbaa moo fi def lii Pape Dia sëriñ mii rek mosaana bëree ba am defet bu ñëwee ci moom li muy njëkk a def jël ko akolaat ko taf ko ci dënnam na ko santal yàlla boole ñëpp nag Pape Dia amutoon adversaire da ngay mujj ne waa Pape Dia mi moom milieu bi mu nekk mu mel mu doon làmb nga xam ne yu sew lu nekk ngi ci te Pape Dia ku mu gis def la ni boppam ku mu gis kaf ak yow rey yow may la jàmm conseiller la sëriñ sax Bombardier dem na ba ne man samay adversaire Pape ja da déggante ñoom téléphone ba ma yéemu ci àdduna kon loolu nit ku baax rek moo ko mën kon dañu koy ñaanal Pape ja fi mu tëdd ci Touba sëriñ Saliou mi mu yaakaaram yaakaar doomam sëñ Cheikh Saliou yàlla na ko Serigne Touba teeru yàlla na suufu Touba oyof ci kam ci barke Seydina Mohamed parce que ñëpp a ñàkk monde làmb ñëpp a ñàkk wax dëgg yàlla. kal maa ngi leen nuyu di la siyaar. waaw maa lay maa lay siyaar Babacar. yaakaar naa ne li ñu dajale fii tey tiis la muy naqar muy génn àdduna Pape Dia yàlla na ko yàlla yërëm yow itam loo mën a dolli si kàddu yi ci Pape ja waaw ginnaaw bi di sant yàlla di julli si yonent bi ah, di wax bisimilah rahmaani rahim di wax alhamdulilah rabbi alamin Pape Diop dafa doonoon nit ku baax nit ku yaatu nekk nit ku tey nekk nit ku fonk doomu aadama te jox ko cër jox ko àqam Pape Diop wax dëgg yàlla li ma toog moom bariwul waaye saa yoo toogee moom di nga jariñu ci moom dina la conseil xamal la mooy àdduna tegaat la si kot bu baax waaw lim lay wax lépp njariñ la dafa doon nit koo xamante ne yàlla moo ko baaxal waaw te wax dëgg yàlla. ñun moom amuñu fayam surtout ñun ñi nga xamante ne dañoo dëkkee mbuur dëgg la man sax xamoon na ñoom ay mbokk lañ sama bàjjen moom ma ko mujjee wax ne ma yaa nag ñoom Bombardier ay doomu bàjjen ngeen ne yaayam salla sant yéen a bokk caale gi xam nga doon ma wax ne ma xam naa su ma guddee fan dinaa leen fa yóbbu bu ko defee ngeen xamante mais heureusement yàlla dogalu ko ba ni làqoo di ko ñaanal moom tamit mbokk Pape Dieng ñoom ñaar ñëpp yàlla yërëm leen jéggal leen yóbbu leen fir daw si suñ borom mën na ko te yàlla na ko yàlla def wax dëgg yàlla euh, taxi booba jee nekk ko yaatu yaatal ñëpp waaw mbuur bu ñëwee fii moo gaa yëpp ñooy foo di ree di kaf di def yëpp wax dëgg yàlla te bu neexoon mu ne ñii kat du ma seen morom waaw mais dañoo jox cër jox cër boo xamante ne ñun ñëpp dañ ko ko delloo bis bii nag wax dëgg yàlla kenn kenn ñoom ñëpp xaaruñu ko woon ci parce que yaakaaruñu ko woon heure bi waaw waaye nag yàlla moom lu mu dogal lu ne mooy am ndax suñu borom bu soxlaa képp ku soxla da ngay ñàkk. suñ borom li mu bëgg rek mooy am waaw moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla suñ borom yàlla na ko yàlla yërëm tabal ko biir si ak mbooleem ku mu fa fekk yàlla na leen suñ borom jéggal bu mu topp dara ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam. itam promoteur nekk si làmb parce que bu mbër am bu promoteur amul mbër du bëre manager am ñu fekk la tey biir kër ñoom Pape nga toog mu génn àddina nga nekk bailleur ci làmb di tëgg làmb yéen en tant que promoteur seen relation ak Pape Dianga nan la demee woon. waa ñu ngi nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu axlu làmb di nuyu mbokk yi fi fekk yaa ngi dégg di nuyu di leen nuyu yéen maanaam ki dem Sénégal ñu am perte ndax Pape ñu bëri ci làmb lañ ko xamoon mais en dehors de bi lu amoon solo lay yaa ngi dégg feebar bi lu ñu dund ak moom la man ba ni mu voyagé ànd ak jàmbaar dem. yaa ngi dégg ñu ngi jokkoo ñu ngi diisoo ñu ngi def lépp ba nit ñi ñibbisee ñoom ñaar yaa ngi dégg feebaroon na trop Bombardier sonn na ci yaa ngi dégg def na lépp li nga xam ne nii ci jëmukaayam li mu waroon a mën a def la mais nag Mawlana moom bu soxla kenn mënu ci dara parce que lii yàlla rek moo ko sañ keneen ku ko defoon ku dul yàlla coow dina bari donc dañuy delluwaat sunu xel xam ni ki ñu ko joxoon moom moo ko jël metti na trop nag. metti na di wu njabootam di wu soxnaam parce que dem bàyyi ay tout tànk ay ndaw dafa tiis dafa metti te papa doon na koo xam ni kenn mënu ko remplacer donc naqar bi lu ñëpp bokk la ak lu làmb dëkkandoo yi mbokk yi Sénégal gi yëpp diaspora bi tout le monde di ñaan yàlla sunu borom mi ñu ko joxoon te jalaat ko yàlla na ko yàlla xare àjjana te jégal ko ay bàkkaaram mais lu tiis na trop dara métti na trop. dégg nga lay ziar di la jaale. parce que yow li tax ñu lay dégg micro mooy sa relation ak euh, famille ja bi muy Bombardier ak ay magam ak famille bi tey ñu ñàkk Pape Dia euh, loo ci mën a sànni comme kàddu. waaw Babacar di la ko jaale comme li ñuy wax rek euh, maak famille bi dañoo yàgg depuis 2007 ba léegi te su la waxee benn affaire amaana xëy dina bett ñu bëree Pape Dia moo tax ma xam Bombardier ndax maa ngi fàttaliku bi muy bëree ak Gris Bordeaux dafa def defoon benn face à face léegi man sama objectif yëpp moo na def interview ak moom. léegi nag si Pape Dialla jaar pour ne ma dama bëgg def interview ak Bombardier Bombardier ne ko kaay def ko si biir oto bi mais su fekkee ni set nga xam nga mbër rek noonu la ñu xamante ba sa relation 2007 ba léegi donc euh, boobu léegi nañu xamante xam naa waa kër gi xam naa soxna Bombardier xam naa leen daal waa kër gi yëpp pratiquement ba lañ ma koy ñoom ñëpp kenn ku nekk duñu waxante suñuy tur soo xoolee Bombardier Zé la may wooye ma koy woosee Pape Dié partenaire laa ko doon wooye mënoo wooye partenaire donc daal ay comme li ñuy waxee lu yàgg dëgg la euh, kii Babacar Pape Ji daal yaroon tem yaruteem bi nit di wax tamit dafa mel ni lu lu lu am la de. waa xam nga lu ñëpp wax loolu lay dëgg xam nga ñëpp nee ñëw soo gisee Pape Ji ba ñu ngi ñëkk a gis te soo xoolee sax photo yi nga xam ni moom la Bombardier posté si WhatsApp bi. même bu mu feebaree hôpital bëñ yi rek ngay gis kon ça veut dire que nitu jàmm la te aussi témoignage li ñu wax nee nañu euh, même kër gi sax kër yi famille sax soo amee ñoo xam ne déggoowu na moom moo jëloon batoon na pereem comme ni ko tubaab di waxee di jubale jël puso wëñam di ñaw diggante yi donc loolu daal témoignage bu baax la te am nañ si yaakaar bu baax Babacar. Biram ñu ngi Leewtoo TV la nag waaye ménage la te Pape Dia ménage la woon yaakaar naa ne bu ñu nee ménage yi na bokkoon kuréel gi. yaa ngi dégg yow dama lay laajte en que manager koo xam ne yéen a bokkoon daan jax si défendre intérêt mbër yi lan nga mën a wax ci aji dem ji nga xam ne mooy Pape ji ñu ñaanat yàlla yërëm ko taxare ko hmm, li may def mooy nuyu mbokki Sénégal hmm, ak euh, mboolem ñi suivre Leewtoo euh, di jaale àddina bi yëpp Pape Dia yàlla yërëm ko taxare ko àjjana yi gën a kawe di la nuyu euh, di nuyu yàgg maar ak mboolem équipe Leewtoo bi Euh, Babacar boo xoolee li ñu mën a wax ci Pape Dia xaw naa bari tuuti ndax euh, ci regroupement national des managers élection yi passé rek maa yore woon élection yi euh, di ko régulariser mu woo ma déclarer candidature am waaye Pape Dia bi ma ko xamee avant élection yi après élection yi biir élection yi ba ci combat bi mujj combat bi diggante Bombardier ak Eumeu nga xool su ma soxla nu mu demee ak Eumeu Sène teewul Papa ci buntu làmb ja yar bi teggin bi teey bi mosuloo dégg ci moom benn coow daray xëccoo daray xëccoo Papa Dia bugg ko ba ci biir élection bii ma la wax nii ba ñu toogee ci salle ba ba ñu xawee wax nii wax nii wax nii dafa voté normal mel ni du moom moo doon vote ak président Babou bu buñ ko gagné dafa ñëw félicité ko jël la mu wax lu rafet ba pare mësul tarde lii di cotisation pour wax la amut lenn liy ménager Sénégal mës a woote Pape Diané ci ginnaaw kon ñu ngi koy jaale àddina bi yëpp yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana di la ko jaale yow di ko jaale Ndeye Coumba Fall waaye di ko jaale mbooleem àddina bi jërëjëf Babacar. Hmm, kilifa ki ñu ngi lay ziar di la jaale li ñu bokk. waaw maa leen delloo ziar Lému Diallo man maay rakk si Pape Dia maa topp si Pape maa man maa ko mag moom moo doon si man ba ma dem moo doon waaw waaw. Euh, tey ngeen ñàkk koo xam ne nii seen mag la seen kilifa comme ñu ko ñu bëri di waxee ci yaram tegginam ak bëri jàmmam loolu yëpp bokk moom nday ak bàyyi topp ci ginnaawam loo ci mën a doole. waaw sant yàlla rek vraiment Pape bisu bisu tayam bi dafa jar a ñee ndax tey nit wala kilifa jóge na fi te amul Pape am tey ji waaw mu nekkoon nit ku baax nit ku baax boo xamante ni kàddu yëpp benn la. waaw ñëpp pap dafa baax dafa baax dafa baax kon boog ñu ngi am yaakaar ne fa mu tëdd nañ fa yaakaar daal yàlla xare ko àjjana àjjanay firdawsi atte ko si yërmandeem si barke Seydina Mohamed loolu daal lañ koy ñaanal ah. tur bi fàttali ñu ko. Lému Dia. Lému Dia waaw. jërëjëf. tey ñu ngi mbuur liñ fi indi nag ku ne xam na ko tiis la di naqar. di Pape Dia di magu Bombardier yàlla daf mu génn àddina barki dem yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mbër ñu ngi lay jaal li nga xam ne ñoo ko bokk parce que naqar bi yaakaar naa yaag sénégalais yëpp yéen a ko partagé waaw euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi rek gërëm sunu waajur yëpp di gërëm Sénégal yëpp di gërëm àdduna bi yëpp ndax euh, Pape yaakaar naa ñu nañoo bokk ak moom si deret mais li ma fi gis si ñaari fan ñetti fan yi même bu doon naqar sax naqar bi dina wàññeeku ndax te naxar boo ko bokkeeg doomu aadama yi rek dina wàññeeku euh, Pape nag wax si wax si moom yomb na yombul euh, li ñu dafa bëri daf ma yar parce que ñu bëri rek li ñuy remarqué rek mooy euh, lu yàggul mooy bi muy ànd ak man si làmb mais Pape moo ma yar man maa nekk ñetteelu rakam donc ñu bokk benn kër pendant des années mu nekk nit ku baax li nit ñi seede si moom rek foofu lañ mën a yem maanaam Pape dama dem ba benn sama ma bëgg a comprendre sax ma ni est que nekkul missionnaire ko am dafa ñëw rek pour dox si benn mission après dem si laay soog a commencé di soog di rendre compte yi daan def seede bi benn la Dakar Mbour fu mu mënti dem danaan la Pape Bokk Ndoye li mu njëkk def mooy da lay xëcc taf la akolaat la kenn ku si nekk yaakaar yow noonu la leen nuyoo fekk noonu la def ak ñëpp man li tax ma placé pour wax mooy que dernier jour yi Pape dund si kaw suuf dama ko nekk ak moom nga xam ni huit heures la ñuy gisante ba vingt deux heures ñu tàqale ko parce que kenn daaw fanaan mu daan wax ak man lu bëree bëri bëri dégg naa ne témoignage yëpp ku baax la mais li si gën a ëppaat solo mooy jullit bi ñu wax ne jullit la man dama koy firndeel damay wax ne jullit ak xan la ndax bi ko feebar bi commencé di attaqué moo doon jàppal boppam di taxaw di julli ba mujj gi mënatul taxaw muy toog di julli dernier jour yi dem na ba mënatul toog julli ma nekk ak moom man maa doon dem uti ndox jox ko muy jàppal boppam tëdd di julli mu dem ba mënatul yëkkatil boppam ay cëram pour jàpp maa koy yëkkatil jàppal ko mu tëdd fi mu tëdd ay loxoom kese la doon jullee loolu ay firnde laa si am parce que dama ko filmer garder comme archive kon loolu wax ju wér la kon kooku ngëm googu la yóbbaale moo tax ñu am yaakaar bi si des mooy li fi teew diggante démb ak tey caaxaan yëkkatiw leen maanaam Sénégal fi teew si domaine yëpp nag politique bi sport bi diine ji euh, dëkkandoo yi maanaam mbooloo mi tey au moins dina am ñoo xam ni yàlla rus na leen maanaam bu ñu ko ñaanalee yàlla nangu ko te ñëpp ko ñaanal kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana fi daw si Euh, am na loo xam ne tamit euh, dinañ la ko laaj ndax dégg nañ nga wax ko koo xam ne danga ngeen bokk ndey ak baay mu feebar tëdd nga dem ba médecin ne la mi nangami jour wala dans telle date du ko fi fekkaat loolu bi ñu la ko waxee yow loo yëg. waaye yëg bu metti mais xam nga tey euh, sànq bi ma ko waxee sax mënu ma ko yeggali parce que fu ma tolloon la xam nga tey ki nga bokk ndey ak baay mu yar la nga ànd ak moom si médecin mu defal ko bilan ne la dundam mënatul egg deux mois. si koo xamoon muy defal boppam lépp xamul dara gënu ko met te bu fekkoon nañ ko ko wax mu xam ko di ko mën a bokk ak moom mais waxuñu ko ko parce que homme de confiance am lañ ko wax ñu ne mënul dundaat deux mois léegi liñ la mën a garanti mooy ni man na dundaat un mois léegi si biir un mois yooyu yow yaa war a nekk ak moom ba dernier jour am lu métti la may toog ak moom muy projeté ay un an si kanam ay deux ans si kanam te li may moom li muy wax. man xam naa ne du ko fekkee loolu c'est dur dafa metti ba pare secret boobu ma war ko koo am na ñu bëri ñu ma woo ku ma si woo paam nu mu def may la mu ngi tane mu ngi tane bu baax mu ngi tane bu baax ba propre famille bi ñu bokk kenn nag mosu ko si xam ku ma si woo mu ngi tane ku ma mu ngi tane. du sa yaay du sa papa du soxnaam. benn doomu aadama bu ko si xam soxnaam. paa nelaw na man maa ko informé man. nëbb naa ko ko bokk ak moom benn chambre nii si hôpital mu nelaw ñoo ko defar yóbbu ko si morgue bi nëbb ko jabaram parce que dañu buggoon préparer ko mentalement soo ko ko annoncé loolu dafa métti donc man bi may waxtaan ak moom mu ngi projet rek di wax ay année prochaine ay lii tuuru famille bi après saison bii di ñëw genre mel noonu di waxtaan rek mu wax ni kii xamul ndax day dem te yow xam nga ko léegi nag bu ñu nekkee may jéem monte moraalam il faut ma dundee noonu foog ma jéem a won ne ko dëgër naa aw ma dara lu may xool si yow mais su ma génn nag ba ñibbi si la ma fay a si la may soog a ko quoi waaw may touché parce que damay xam ne kii ma bàyyi mu ngi loo xam ne moom xamul ndax du ko fekkee te xam nga ko waaw. mu mel ni sonn nga ci tamit parce que jël nga ko yóbbu bitim réew faji loolu lépp yàlla ñëw ak dogalam. waa xam yàlla bu la naree jël. da lay boole ak li lay yóbbu lu mënti doon nag dalay lay boole ak li lay war a yóbbu Sénégal la ñu njëkkee man boo seetee quatre mois defuma activité defuma dara dama concentré si moom muy Sénégal muy France parce que mënoo nekk nit muy man loo nekk mu necc ba gën la see sonn moom mu ne si difficulté yow nga bàyyi ko def activité àndul sax te boo seetee combat bi ñu doon wax fii ma war a def décembre ñu bëri comprendre mais loolu tax ma gën ko bàyyi parce que xam naa ni mënu ma yor malade ñu annoncé ma liñ ma wax ndey ko ma mi waxtaan nañ si sa combat ma yaa ngi préparé ma ne ko waaw après naa la expliqué mais mënu ma woon préparé ak si situation yi demee noonu parce que xamoon naa ni avant décembre loolu day am loolu moo tax ma bàyyi ko mu jàll ma concentré aussi moom presque quatre mois yoo xam ni def ma benn activité mais alhamdulilah bu doon ni faj rek mooy tax du dem kon du dem mais yàlla moo ko nammee noonu côté sport bi nga bokk ak say mbokku mbër gis naa fi Yékini ku ne xam ne sa sa wujju woon ci làmb Tyson Gris Bordeaux Eumeu Sène ñoom ñëpp Boy Niang Modou Lo loolu lu mu def ci yow en tant que sportif. waaw mooy day indi li ma wax ne mbër yi ku ne yaay sa trésor morom bés yu mel nii la rek euh, yàlla moo ñu nattoo ñu nekk si làmb di séngatu mais ay ay monument lañ ay référence lañu mooy waral souvent sax ñu naan waruñu dem si yenn xew yi démb Yékini ñëw na. Gris Bordeaux ñëw Eumeu ñëw ah tey euh, Malick Gakou ñëw na démb euh, tey Alioune Sarr euh, Matar Ba Omar Youm Tapha Tine ay ambulance Thiès ah kii it promoteur la Mor Ndiaye Pape Abdou Fall vraiment mënuma lim ñëpp ñooñu dajal leen si benn bis yombul ku si nekk am nga yitte yoroon doxi mais xaj na ku si nekk am na loo seex ak moom ba tax mu ñëw kon loolu sant yàlla la damay wax ne ñoom ñooy samay trésor comme nag mënul ñàkk yàlla moo ko bind ak ñun yàlla nañ ko yeex a fayante yàlla nañ ko yeex a fayante. ñu ne Bombardier ñaari at wala at moo ko dese ci carrière am est-ce que mentalement ak moralement Bombardier dina am moralu dugg ci làmb di bëre te gisul magam jooju. waaw dina am moral parce que tey euh, ki ñu annoncé loolu nga am mentalu garder ko wax dëgg yàlla au moins war nga defaat ñaari combat pour euh, mémoire Pape bëgg naa ko trop pour honorer ko waajaat si géew bi xam naa nag fi muy gën a difficile mooy moment bi may nekk si géew bi su ma xoolee gisuma ko ne difficile mais xam naa dinaa ko mën a tenir incha allah rabbi ñu lay jàllar parce que defe naa ne ci benn carrière nga ñàkk ci ñaari menaces muy bàyyi yéeri di sa mag Pape Dia defe naa loolu tamit metti na mais nag yàllaay dogal comme noonu nga ko waxee daal. métti na trop mais yàlla mooy dogal nu ko neexee tey li yóbbu Pape mënoon na ma yóbbu. te mu yeex mu gaaw këru dëgg gële ñun ñëpp ñoo fay dem te euh, dafa am loo xamante ni yàlla dalay lay jàngal man li ma dund moom si feebar bi ba biñ koy indi ba biñ koy yóbbu si ba bañ koy sang bañ koy suul maanaam dama ni man si àdduna gisatuma lu ma mën a lu mën a yëngalee sama xol gisatuma dara dem naa benn sax man est-ce que sax yenn xëccoo yi ñuy def nii jarati na ko parce que Pape ku ko xamoon ni mu civilisé. bëggoon sangu sañse sol lu rafet bëgg xam nga nga gas suul suuf dugal ko suul wan ko ginnaaw loolu bu la yéemul dara du la yéem man bi may ñibbisi dama ni àdduna jaratu la xëccoo lu la nit gën a bëggati bàyyi koog moom te xam ni fële mooy kër dëgg gi waaw. ci yow bu baax. jërëjëf. yàlla yërëm ko xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne tamit euh, loo am na loo xam ne yàgg faw ñu wax ko parce que waxoon naa ko. maanaam euh, nit ki fi mu yaroo day feeñ ci moom parce que yàgg nañ la xam si làmb mësuñu laa dégg ci lenn lu nga xam ne nii lu gën sport la sa mag tamit bi mu ñëwee di la mënaan sa bi bàyyi yëri nelawee loolu lañ doon gis ci yow kon ça veut dire que dañ la koo yare dañ ko koo yare loolu nag defe naa mooy àddina kon nag sportif yi la ñuy waxal rek mbër yi ak ku mu mën a doon nañu rafetal affaire yi àddina sax la ñu war wax parce que lii yëpp day jeex daal yal na yàlla yërëm ko xare ko aljana te yàggal sarax bi seen loxo barke yonent bi sallallahu alayhi wa